xëccoo alors que moom personnellement nee na ay yoon bàyyi na nga dem donc jàppaloo woon si xëccoo bi mënoon na ñàkk seen diggante. d'abord xëccoo ay yoon bàyyi na yow nga dem quoi yombalal na la ko. <laughs> Pape wax na ko en 2014 wax na ko wax na ko. expliqué waaw Pape xam nga yow yàlla may na la xel ñu ñuy déglu tamit euh, yàlla baaxee na leen xel mosoo gis fenn ci àdduna ci politique ñit di gagné dara di ko jëbbal nit amut dëgg bi. mooy lan mooy 2014 dama doon xëccoo ak suma yaay di Soham El Wardini ñu bokkoon suñu coalition Benno Siggil Sénégal man ma nekkoon PS ma mu nekkoon AFP. Mhm. ñu dem ci xëccoo bi ci premier tour mu jiitu mu jiitu daanaka lu ko desee woon pour mu gagné mairie bi su ma juumulee ñaar ba ñetti voix la woon ma topp ci ginnaawam wante amuloon majorité absolue ñu dem second tour te loolu mooy dëgg ñëpp ko fekkee l'histoire est ñu dem second tour yàlla buy buur bu mag ji may ma ndam dañu xëccoo ma am ndam ñu delluwaat ci 2014 ma nekkoon maire sortant. suma yaay bi mu ngi may déglu di Soham El Wardini parce que damay wax te yàlla tax man Barthélémy Dias man maa ko teg tête de ci lan ci ndigalu xalifa Sall ma jël suma beneen yaay bu ñu doon wooyee maman Raki Wan bokkoon ci LD ci ndigalu xalifa Sall ma jiital ko tamit mu nekk tête de liste ñoom ñaar la xalifa Sall bëggoon gis ci mairie de Dakar man buy wax ak yow nii tey du ma conseiller mairie de Dakar te dinaa la wax dara 2009 nekk moon tête de liste 2014 nekk moon tête de mu musuma nekk tête de liste suma benn xarit di ma tooñ di ma ne lu tax saay booy xëccoo doo nekk tête de liste. da ngay laqatu. ne ko dama sonn ci sëriñ yi yi tête de liste la ñuy yóbbu ci gaañ yi ñu leen di xon ak di leen di galgal te dama sonn ci loolu. Mhm. mais pour gagner élection jamono yooyu soxlu moo nekk tête de liste c'était une petite parenthèse hein, parce que nous mhm. sommes des Africains. wante au-delà de ça je considérais que comme Khalifa Sall mooy suma kilifa mu sàkku ci man na ma dama bëgg kii di soo Soham El Wardini comme du wut mairie de Mermoz Sacré-Cœur dama bëgg mu ñëw mairie de Dakar dama ko soxla ci bureau municipal noonu laa ko investir parce que loolu mooy dëgg maa nekkoon mandataire su ma neexoon ma defee ko neneen wante man yàlla bindeewu ma noonu soo am El Wardini Barthélémy Diaz man maa ko investir tête de liste euh, majoritaire ma jël su ma beneen yaay bu ñuy woy Maman Racky wan ma investir ko tête de liste proportionnelle te ñoom ñaar ñëpp tey ñu nekk ay conseillers municipal te ci conseillère municipale boobu la Soham El Wardini Dia ba nekk maire de Dakar ñu koy jaajafee di ko jox tamit wàccuwaayam. Mhm. lu mooy dëgg bi. ok wante di wax ne ni que da ngaa gagné mairie jëbbal ko Barthélémy Diaz loolu wax dëgg yàlla du wax bu dëpp ak dëgg.